le financement des partis politiques man d' accord ma ñuy financer parti politique comme doyen nu mu ko waxee. d' accord ñu financer parti politique d' accord ma si mais pourtant loolu ko bind ci ci ci suñu suñu charte réew. Euh, la constitution man euh, ñun l' erreur la base suñu constitution nag war nañu ko changer. d' accord waaw ah, baax na. constitution c' est problème bi commencé les parti politiques pour man war ñu leen financer parce que tey y' a plus de 330 parti tey parti bu nekk soo ko joxee 10 millions ñaata milliards te dëkk boo xam ne amuloo sax ay tëlis yenn route nationale latérite la ay piste la je pense que xaalis boobu jox ko Sénégal yi ñu ko soxla di dem di émigré ndax ñàkk moo gën ñu ko jox ay politiciens ñu si dem di politique politique laa la dem waxtaan ak nit yi je pense que parti politique soit ki ko jiite am xaalis di finance financement wala tamit moom moo war de muti ay nit wala ay bailleurs convaincre leen ñoom ñu jàppale parti bi. bailleur waaw comme mais Pastef doon na ko fi def benn ay bailleur jóge Sénégal parce que la interdit mécène quoi ay mécène par exemple tey loi daf ne xaalis boo jël boo xam ne du xaalis bu jógee si Sénégalais bu ko politiquee dañu tas sa parti loolu yoon la c'est-à-dire que man tey Amidou en tant que président du parti MPR su ma jëlee financement bu jógee extérieur dañu tas sama parti man pourtant y avait des gens des Sénégalais de la diaspora ñu ma proposé woon ay ambulance mooy ko du ma ko jël wóolu ambulance. mais loolu du financement ambulance. loolu ma kaa doon jàpp daf ma ko doon jàppale pour ma dem di si politique ne dama maye ko comme ça dina la jox benn xam nga Sénégal fii ñoom politique da nga kaa booleeg social. waaw c'est-à-dire que yow da ngay maye des fois nit yi euh, ne ah comme hmm. kii dafa baax na nga ko jàppale. man ko loolu du ko jël parce que xaalis euh, ambulance yoo xam fu mu jóg fu mu ko te wóorul mais fu may waxee rek parce que état da kay tere état tamit day tere xaalis bu jógee bitim réew mais chaque fin d'année. da ngaa war a envoyer c'est état financier. bien koy def bëriwul de. am na ñu koy def dégg naa ngi koy def presque euh, chaque année. donc avant le 31 janvier dañu joxe seen état financier. li leen encaissé li leen dépensé fi leen jëlee xaalis bi. donc ñoo ngi koy def chaque année. on a été créé en septembre 2020. trois def fois ñu koy euh, ñu koy donc euh, loolu ñoo ngi koy def régulièrement. d'accord date anniversaire tamit on donne tous les membres du parti. envoyé ko ministère de l'intérieur comme c'est écrit sur les textes <laughs> ok d'accord donc yëpp ñoo ngi euh, on a participé à toutes les élections am na nu suñu quartier général donc euh, les kii qu'il faut remplir les coches euh, les les cas qu'il faut remplir là yëpp respecté na ko malheureusement beaucoup ne le font pas mais financement yi d'accord ma ko parce que tey dëkk bi suñu sonnee fépp ay manqué du ñu jël ay milliards di ko jox nit ñi ci politique ça ah. pour de vue